ñaareel ba histoire bu xaw a gudd la tuuti bi may waaj a nettali nii histoire bu xaw a gudd la mos naa koo nettali RTS yaakaar naa benn waaye soo xam ne moo nga dëkk fële ca dëkk sàngam ci frontière Sénégal ak Mali amoon fa soxna muy aawo am fa ay doom jóge foofa dem tukkiit bitim réew nekk fa di liggéey ba mu yàgg mu takk fa soxna muy ñaareel tabaski jot mu ànd ak ñaareel bi ak doomi ñaareel bi ñibbisi ci réew mi di tabaski si bi mu ñëwee ci kër gi ci tënk rek aawo bi nekkete ay seytaane nit jàpp nañu ci noppam bi wax ak moom ba ne ko fexel ba sa ñaaral bi bu mu ñibbi France bu nangu sa jëkkër di la fi bàyyi dem di dund ak moom France di la fi bàyyi yow ci tund woowee moom aawo bi mu dem seeti ab benn njabarkat daal di koy expliquer problème bi ne ko sama jëkkër daf maa abandonné dem France takk fa beneen soxna léegi dama bëgg nga defal ma loo xam ne sama wujj bi day ñibbisi ci réew mi te du mën a dellu nee na njabarkat bi daal di koy jox benn genre sunguf ne ko sunguf bi boo demee ci ndox bi muy sangoo nga koy wis mu sanguwaale ak moom ndaw si ñibbisi tàkkusaan jot ñaareel bi bi jóge France bëgg dem sangu ji bëgg sangu ji aawo bi ne bërët këf si wa sangukaay bi ne ko maa lay rootal nga sangu yow bul def dara toogal daal di koy rootal yóbbu ci wanag wi fecc mbuus mi wis ci affaire yi yëngal bàyyi ko fa ndaw si daal di ñëw sangu ba pare bi muy laata génn yaram bi tàmbalee soppeeku yaramu ndaw si tàmbalee soppeeku di teg ay waasinteur waasinteur mel ni di xubbeeku daal mel ni commencé di yor deru comme deru mbët muy wokku di sorti ndox affaire yi di gëna kotomu mu teet genn aawo bi gis loolu teet daal di wax ci làmmeñam ne wax dëgg ak yàlla sant ma woon sëriñ bi ñu daal di koy jàpp xam ne kon avant tout d'abord mom am na ci loxo mais problème bi mu ngi gën a garaaw ak ndaw si sangoo ndox mi ci moom la ñu di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc affaire yi di gën a am doole ci yaram bi dem bay dégager ay picc yoo xam ne picc yi day toj di génne dëtt tàmbale am xet tàmbale am xet xet bi di yokk di yokk ba nekk ak moom ci benn salon wala benn néeg moom c'est impossible mënul ne tellement que xet gi waa kër gi daal di koy isolé néegu boppam ci xale bu jigéen bu jógoon France ñëw tabaski si daal di koy isolé ci néegu boppam dem dem dem ba buñ koy indi lek sax ki indi lek bi ni lay def ñoo bo jup néeg bi rek ba ma lek gi affaire bi nak tambalé ko soral mu commencé di di wax wa kër gi ku may rey fay ko commencé di ñaan nañ ko ray mom nañ ko ray parce que bu amoon lu mu ray boppam damay ray sama bop comme fi ngeen ma duggal lu ma ray sama bop ku may ray. parce que sama dund bi mënatuma mako dund bo ci teunk rek ci teunk ñoom fu ne dugg nañ fa ci tund woowu dugg nañ sax ba ba Mali fu ñu xam njabarkat maa dem nañ fa am na ku ma wax si ñoom ne ma indi nañu luy tolloog juróomi njabarkat ci kër gi ñu fiy lekk di fi yendu di fi fanaan njabarkat bu nekk fay nañ ko trois cent cinquante mille trois cent cinquante mille juróomi yoon ñaata la am na ay mathématicien fii wala ah ñaari ñaari trois cent cinquante mille loolu sept cent mille ñaari sept mille ñaata la un million un million quatre cent ah un million sept cent cinquante mille jabarkat yi nekk fa am fa juróomi fan di def seeni débat def ñoom lu ñu am def zéro affaire bi di gën a yokk rek ci la yàlla dogal ñoom yàlla boole leen ak benn waay koo xam ne ruqee lay def ñu waxtaan ñu woo waay si explique ko situation bi ni mu demee waay si ne leen loolu day est-ce que mën ngeen indi ndaw si est que mën ngeen koo indi ñu ne déedéet mënul dugg oto ban oto nga koy dugal mënul ne il faut nga ñëw ah waaye si daal di dem mooy kooku di def ruqya dem fa bi mu demee problème bi problème bi mu njëkk a am mooy nan lay duggee ci néeg bi pour mocc ndaw si parce que tellement que xet ñu obligé ñoom ñu daal di jël ñaari paanu ndox dem ci àll bi dagg ay xobi si déem yu bari indi si déem mbokk yi lu efficace la ci faj wàllum jabar si déem xobu siddéem dem lu efficace la ci faj wàllum njabar bu dee njabar koo lekk sungufu siddéem sungufu siddéem ñu dem ñu jël ñaari paanu ndox teg dem ci àll bi dagg ay xobu si indi parce que nekkoon nañ ñuy tolloog ñetti nit ko ñu takk ay masque muñ xeetu ndaw si dugg ci biir néeg bi ak ndaw si daal di koy lëmës benn zaaru mëlfa boo xam ne mëlfa bu oyof la ci yaram bi jël ñaari paan yooyee benn bi ñu jàng ci suratul ba mu jeex benn bi ñu jàng ci suratu ali imran ba mu jeex jànguñ leneen lu dul loolu am ku toog nee ci wetu ndopp ndaw si am keneen ku toog nii ci wetu ndopp ndaw si am ku yor pot ndox di tànk ci ndox mi ñu mélangé si démbeeg baqara ak ali imran di sotti ñaar ñi di mocc kee jàpp ci baqara mi kii jàpp ci ali imran ji kii mocc di mocc kii sotti di sotti kii mocc di mocc ñi kii sotti di sotti ñii mocc di mocc kii sotti di sotti muy premier jour ñu bàyyi loolu suba si la ngoon si ñu gaa yi defaat ko ëllëg sa gaa yi defaat ko ëllëg sa gaa yi defaat ko fukki fan lañ fa def dix jours yaram mu ndaw si sept huit huit huit huit xet bi disparaître dara dalatu ko ndaw si dellu na France ak njabootam ci jamono boo xam ne ñoom wër nañ tund woowu yëpp dem di dimbali koo njabarkat yi mais dara zéro effet lii li tax ma nettali leen ko mooy ñu yëg subhanallah ñu yëg yàlla kàttan bi mu def ci alxuraan ni mu mën a wérale rawatina ay maladie mystique rawatina ay maladie mystique am na koo xam ne si drépanocytose moo ko sonaloon drépanocytose moo ko moo ko sonaloon moom hôpital yi mu ngi fay dem du jël ay traitement mais man dama bi ma ko convaincre ne ko lii booy ñëw ay séance mocc ci nu yàlla gëm gëm naa ne duñ la mocc six mois te bàyyiwu la mu respecté séance mocc yi joxuñu ko mu naan joxuñu ko mu lekk joxuñu ko mu sangu ay séance mocc lañ ko respecteel bu ñëwé ñu tim ko mocc ko luy tollok minimum 20 à 30 40 minutes bay ko mu dem mu respecté ko 3 mois 3 mois la def tout dara dara dara ci likoy soro en tant que symptôme ci maladie de Raynaud tout ko am ko xamné tank bi mo amone ben plaie gom bo xamné presque lek na xaju tank bi mu teew wér fu nek dem nafa donc biñ ko joté sungufu xabatu sawda bii la ñu jël di ko moccu di ci mocc alquran di mocc ci góom bi di ko ci wis sept jours pele bi tàmbalee wow tànk bi tàmbalee dem ba actuellement li ci des tollul nii. MMS Pro. 221 ak yeneen ak yeneen mais yii dañ leen koy nettali rek pour wax leen ne ñun dañoo négliger aspect médecine bi am ci alquran. oustaz day ñëw toog fii di ko tafsir di leen wax ndigal yi ak tere yi ndigal yi ñu koy jéem a jëfe tere yi ñu tere yi ñu koy jéem a bàyyi mais alquran romb na loolu am na yeneen yu ci nekk bu ñu réeree mu jubal ñu moom alquran bu ñu xamul mu xamal ñu moom alquran bu ñu wàccee yoon bi mu teg ñu ci yoon bi moom alquran mais bu mu bu ñu feebaree mu faj bu ñu feebaree mu faj léegi nag naka lañ ciy fajoo parce que am na ñoo xam ne dangay dem ci ñoom ñu ne la alxuraan la ñuy fajee waaye dangay ngay rebat dangay ngay da waaru daal mbokk yi fajoo ci alxuraan ñetti étape la ba si jiitu mooy mocc jàng ëf parce que loolu mooy ruqiya ar ruqiya wa nafas jàng ëf mooy li ci gën a efficace jàng ëf keroog damaa def benn vidéo boo xam ne damay wax ci mocc sa bopp ma ne dajaleel say loxo nii jàng ci faatiha ba mu jeex ëf ko ci loxo yi diwal ci yaram bi yëpp def ko ba muy ñetti yoon soo ko mënee bamtu ci journée bi ñetti yoon bamtu ko yàlla dogal vidéo bi di circuler am koo xam ne Europe la ma woowee mu ne ma oustaz man xaw naa dee depuis nangam ci ay at su may julli ci seize laay toog ci seize mais bi ma gisee li nga wax nii ma koy def ba tey léegi damay sëgg di siggi di toog normal di julli te yëguma leneen lu ma jëfandikoo lu dul yow li nga wax mu ne ma oustaz affaire bi am na doole de <laughs> waaw waaw gis nga fatiha lépp lu ñuy fajoo ci alquran fatiha moo ci doole القران ليباي فاج سونو بوروم نينا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين بوروم نينا القران بي نين جانغ مان يالا ديفنا سي لو لين دي فاج قل هو للذين امنوا هدى وشفاء محمد صلى الله عليه وسلم وخال نيت ني نلين القران بي نيك نا لو لين دي ويرال القران ويرال لاي واخ دو سا فاج مي ويرال لاي واخ ويرال شفاء lépp lu ñuy fajoo saar yëpp ay faj waaye bépp saar bu nit ki di jëfandikoo ngir faju faatiha moo ci ëpp doole loolu nag yërmande yàlla la parce que normalement jullit ñëpp dañoo war a mën faatiha loolu di la woon ne caaba ji mu ngi sa loxo <laughs> jafewul xoolal loolu rek léegi yàlla bu waxoon baqara mooy faj <laughs> bu dee woon baqara kese ngeen mën a jàng ngir faju kon di nga gis ku paas fii ba Casamance di war ko jàngal baqara parce que baqara ñi ko mën a toog ñi ko mën a toog nii te tari ko ba mu jeex te xooluñ ko fenn loolu bariwul de waaw <laughs> ah, mais xoolal yàlla fatiha la ko def secret faju ci alquran yàlla dëxañ ko ci fatiha allahu akbar yonent bi daal di wax ne moom day faj innaha ruqya waaw ah, moom day faj xoolal lugg jaan jaan ñiy wax foofu ci ruq bi nañ ñu may dimbali waay jaan jaan jaan bu la màttee jiit bu la fittee mat mat jaan fet jit jiit gombuytee wër lak lak bu bes dag-dag bu bes yaram wuy metti ma tanku yu bañ febar bu la jaaxal bu la jaaxal waxuma bu dem ko docteur rek dem ko docteur bo la ci fatiha la ci di laal ci fatiha ji la ko ci rek na xol yow la ko ci rek garab buñ la jox ba naan bo la ci fatiha ji nga xol lima la wax ni dimbali ma rek ngir yalla nga def ko traitement sa bop yow ICR rek nga xol di nga gis ay amélioration xol même boy teud guddi même boy teud guddi xam nga yonent bi nee na booy tëdd dajaleel sa loxo yi ni jang ikhlas falaqi ak nas def ko ci loxo yi raay ko ci yaram bam daj bamtu ko bamuy ñett yoon xam nga lolu yamul ci ar la boy nelaw kessa de mais fatiguement wu journée bi yëpp da koy dindiwaale balaa nga xam def ko nga yeewoo fajar nga xool day am différence ak ni nga daan yeewoo fajar day am différence sans benn waay dama am fu ma ko nettali benn waay ne ma oustaz seetlu naa ne ñaan boobu saa yu ma ko defee du ma ma soxla refet pour yeewu ma soxla refet pour yeewu lu ma guddee guddee tëdd lu ma sonn sonn sonn bu bëggee jóg damay jóg nii ngay def sa loxo yi bu dee da nga bëgg a mocc sa bopp jàngal fatiha ba mu jeex booy ëf nag doo def ëf déedéet doo génne air a nafas lañu wax a nafas mooy nafasun ma riqin xafiif ëf ëf la bu ànd ak ay feppi feppi tiflit loolu mooy nafas ay fépp fépp tiflit nga raay diw ci yaram wi yëpp boo mënee solub kilot boo koy def pour affaire yi dem ci yaram wi directement nga raay ko yaram wi yëpp baamtu ko ba muy ñetti yoon boo amee jotam baamtu ko ci journée bi maanaam ni nga def nii jàngal ëf si yaram bi defaat ko ba muy ñetti yoon loolu noonu boo ko mënee baamtu ci journée bi ñetti yoon def ko boo ko mu def ko na amee jotam mais essayé ko nga xool boo seetee ku feebar defal ko ko boo seetee ku feebar le temps que ngay toog di waxtaan ak moom day jàng sa loxo bi fàttee di ko ëf di ko raay ci moom nga xool boo amee maam ju feebar yaay ju feebar ku ci kër gi te wa jóg de ko defal loolu saa yoo duggee néegam rek jàngal sa loxo ay faatee raay ko ci yaram bi dem lu yàgg dara mu tàmbali laa jàmbat tàmbali laa expliquer ay amélioration ci mbiram dafa efficace dafa yéeme mais mbokk yi doy na sëkk rek doy na sëkk rek ñu ne la waxu yàlla la doy na sëkk rek yonent bi confirmé ne loolu day faj loolu rek doy na li may wax nii yëpp dama baax di wax rek mais loolu rek doyoon na loolu rek doyoon na kon ci alquran bul xalaat ay yeneen saar léeg-léeg nga gis ku bind benn téere naan ayaatu shifa téere ruqiya yi boo demee loolu nga fay gis ayaatu shifa ayaatu ruqiya yooyu ci gëstu boroom xam-xam yooyee la ak seen expérience ñoom yal na yàlla fay leen mais secret faj ci alquran yàlla mu ngi ko dëxañ ci fatiha alquran ak lépp ay faj mais bi gën a efficace ci fajoo mooy fatiha alquran lepp ay musle bi gëna efficace ci muslu moy ayatul kursi ya, jeex dafa wul da da ya. nga bëgg a muslu ayatul kursi moy ci gëna efficace alquran yëpp da nga bëgg faju fatiha ba paré nak bo amé yenen saari nga mokal yenen aya bi jàngal inshallah allah muskil kon méthode bi ñuy fajoo ci alquran bi si gën a efficace te gën ci wér mooy jàng ëf moo xam jàng ëf ci ndox sangu mbaa jàng ëf say loxo raayoo mbaa jàngal ko nit ki ëf ko ci moom raayoo à boobu am na bind waaw am na bind mais lan la ñuy bind souvent foofu la problème bi ni nekk alquran des na ko bind ci kayit def ko ci ndox sangoo ko effectivement borom xam-xam yi nangu nañu loolu ibnu taymiya ci la bokk ibnul qayyimil jawzi ci la bokk ak ay ñeneen ñoo xam ne saxal nañ ne alquran des na ko bind ci li nga xam ne mooy fooy def ko ci ndox ragg ko ci ndox wala bind ko ci àlluwa ragg ko ci ndox sangoo ko dina ñëwaat nag na doon ne alquran nga bind parce que ñi dañuy jël seen fooy bind tu leen neex naa naa alquran la loolu mooy problème bi dañuy jël foo bi bind ci kaw quelque aaya wala salaatu ala nabi daal di am ay rëdd yu taxaw am rëdd yu tëdd ci biir case yooyu ñu def fa ay chiffres boo xoolee côté bee gisoo benn chiffre dièse xool côté bee gisoo étoile am ay yeneen affaire ci suuf ñu ne leen waa lii alxuraan la sangool du alxuraan de loolu mooy magie blanche loolu mooy njabar gu weex gi loolu njabar la mbokk yi loolu baaxul. baaxul takkoo baaxul sangoo mu des beneen état bi te loolu wérul mooy alxuraan dee su ko fajoo ci takk alxuraan amul dara lum lay jëriñ boo ko takkee bokkul ci njëriñ yi muy def euh, li nga xam ne mooy takku parce que lépp lu doomu aadama di takku di ci yaakaar njëriñ lu muy xëcc wala lor gu muy fegal boppam rek lislaam da koo tere dëgg lu ma indi la xadis yonent bi alayhi salaatu moo wax ci ay xadis yu wér buxaari muslim man allaqa tamimatan faqad ashrak képp ku takk téere bokkaale na téere nag mooy téere baatu wolof la téere mooy doomu aadama bi li mu takk di ci yaakaar ay njëriñ di ci muccloo ci ay lor loolu mooy téere mën naa doon béjjén mën naa doon xas mën naa doon bant mën naa doon yax mën naa doon ndombo mën naa doon mën naa doon ñu bind aw ko ngay tak man na do lu ne bu dee boobu dana sana leer dilal beneen xadis ma lay wax yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam nee man allaqa shay'an wukkila bi neena kep ko tak dara ngir yaakaar ndirign neena yalla na yàlla la ak la nga tak ba xam ndax lo dina la jëriñ ku yalla bàyyi ak bopam fo dem inshallah musal bu bobu boobu jëlal benen hadith bi ñew encore yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man wadaa wadaa man wadaa naka la ko waxee sax eh, man wadaa wadaatan fala wadaa allahu la nee na képp ku gàccoo dara la nga tey yaakaar yàlla bu la ko yàlla defal boobu moom xanaa moo gën a yéeme waaw buñ la waxee takk téere nga ne non boog dal day lay wax boog dal day parce que gars yi boo leen waxee man àllaq tamimatan faqad asrak képp ku takk téere bokkaale nga dañ la naan waaw waaye yonent bi foofu li mu ca jublu mooy lari, day yi ndombo yi laar yi yooyu lañ lay wax léegi indil ko xadis bi yonent bi nee na képp ku wekk dara ci saw yaram képp ku gàccoo dara nee na lam tey yaakaar yàlla bu la ko yàlla defal alquran bu dee moom laa la mënti doon moom daal moom yonent bi wax na waxam te yonent bi li mu wax moom lépp yonent bi du du du comme ñun yonent bi alayhi salaam lépp lu mu wax wallahi lu ci bokkul génn na ko lu ci bokkul génn na ci bul fàtte laa yamtiqu anil hawaa te moo gën a éloquent ñëpp kuy mën a wax yonent bi ndàq wax ay waxam kenn du ko contesté di ko analyser naan non bëgguloon wax lii léegi léegi bëggoon wax ay waxam kenn du ko yàq alayhi salaatu wasalaam parce que génération lay waxal génération par génération waxam day demeurer di dem génération par génération duñ ci modifier wala ñu ci wàññi dara wala ñu dem ba naan jamono bi mu doon wax lii valabalatul léegi wax jii di dañ koy dindi loolu amul ci waxe yonente bi alayhi salaatu salaam daal ñetti étape yii la ci doomi aadama yi di jëfandikoo di ko fajee ñaari moo wér benn ba wérul des koy jàng raayoo des koy jàng ci ndox sangoo mbaa naan des koy bind mu leer naññ nga bind ko mu leer nañ ci fooy daal di xocc ndox sangu te loolu am na sax ñu ko bañ ci borom xam-xam yi am na ñu ko bañ ñu bari ci borom xam yi dañ ko bañ ñenn ñi rek ñu néew ñoo ko ñoo ko nangu waaye comme xam-xam la ñuy waxee dañuy wax lépp dañuy wax lépp waaw beneen ba dafa dafa dañ ko dañ ko sib dañ ko bañ dafa xaraam mooy euh, Eh, bind ci ay yof yi fan takk gi tak gi waaw tak gi ñu ko haramal donc daganu mu dess parce que bëgg na bàyyi minimum une heure de temps pour ay question réponse parce que waxtaan yu melni la plupart question yi mo ci gëna bari bëri fi may jeexalee mooy njabar moom mooy lan ginnaaw bu ñu xamee lan mooy cat njabar mu mooy lan njabar mbokk jullit ñi benn genre tooke la benn genre dangar la boo xam ne mën na làqu ci ginnaaw dara sans réalité ba loolu mooy tënk bi njabar laa wax genre tooke la genre dangar la boo xam ne mën na làqu ci ginnaaw dara soppi réalité ba man na jàpp nit ki bañ loo ko jabaram mën na jàpp nit ki bañ loo ko liggéeyam mën na la um ci sa wàllum jënd ak njaay mu um la doo da ngay xëy toog ba suba nga ba ngoon doo jot client jabar man na xesaloo sa gémmiñ booy wax nit ñi sa gémmiñ gi di xesaw jabar man na déformer sa yër sa wér-gu-yaram mu déformer ko jabar man na yóbbu xelu doomu aadama mën na téye ngóoree góor mën na tëj jigéen mën na laa tey am doom xeetu lor yu ne njabar mën na ko def mystique mën na ko def waaye nag ci jàppandalu jinne yi ci jàppandalu seytaane yi parce que njabar xam-xamu jinne la du xam-xamu nit doomu aadama judduwul ak xam-xamu njabar te bu amul jàppandalu jinne yi nit mën ta defuk mystique nit mën ta njabar déedéet nit mën ta njabar déedéet il faut mu am ay jinne yu muy àndal Lalu motax amul amul njabar kat boy dem ci mom luddul dalay da lay ay sarax motax kep képp ku lay fajj dila la ay sarax bayil mu dem MMS Pro 221 bayil mu dem yalla nettali na ci alquran ne jinne yi ño jangal doomi adama yi njabar atte njabar nak moy yefer yonent borom bi neena njabar kefer la yonante bi ne képp ku sol dàllam seeti am njabarkat mbaa nga woo ko téléphone mbaa nga yóbbante ci moom mbaa nga yónnee ci moom yonante bi nee na boo ko santee mu defal la lam lay wax nga gëm ko nee na julit weddi nga alquran xoolal xadis boobul sew sew bi fa am nga xam ne jàpp naa ne ñu bëri bàyyi wuñ ko xel dëglul xadis bi yonante bi alayhi salaam dafa ne man ata arrafan aw kahinan fa sadaqahu bima yaqulu faqad kadaba bima unzila ala muhammad yonent bi neena kep ko seeti ab kat wala ab kat mu wax la nga gem neena weddi nga wacce ci muhammad lan lañu wacce ci muhammad moy alquran lan motax dem ci kat yonent bi waxu la genn nga ci l'islam waye mu ne weddi nga alquran lu mu tuddu alquran parce que la ngay wuti ci kat da am ci alquran ji <laughs> loolu la parce que ñetti xéetu doomi adam ñoy dem ci kat deug lu bu baax foofu la jeexale ñetti xeeti doomi aadama ñooy dem ci njabarkat yi benn xeetu doomi aadama bi mooy day dem ci njabarkat yi ngir muslu ngir aw ngar ar boppam ar ar ar yaramam am na koo xam ne daay daay yëg ne moom dafa war a wut ay muslaay jógal ci sa bopp bul bàyyi nii sa bopp yaayam jàpp ci loxoom yóbbu ci njabarkat ba ngir lan ngir lu ko ngir lu ko musal ba mooy première catégorie deuxième catégorie bi mooy kuy dem ci njabarkat yi ngir wuti ñaan ñaan ji damay ñaan lu ji moo tax ci biir njabarkat yi daa am ñoo xam ne dañ la naan man damay ñaanalaate man ñaanalaate kat laa léegi la ñëw ci nelaw del ñaanlu nit day ñaanlu am na ñaanalaate kat bu ne fële am na ñaankat bu ne fële gis nga yooyu lañ lay wax am na koo xam ne day dem si njabarkat uniquement parce que day ñaan lu maanaam dafa bëgg ay mbir yoo xam ne njabarkat la koy wax mu defaraal ko mu antu ci moom mooy deuxième mbooloo mi troisième mbooloo muy troisième catégorie kooku moo ci gën a yées mooy kuy dem si njabarkat yi ngir yàq nit yóbbu turut nit ci njabarkat yi ngir yàq ko ñetti xeetu doomi aadama yi rek ñooy dem si njabarkat yi te ñaar ñi ma njëkk a wax moom la ñuy wuti si njabarkat yi moo ngi ci alquran musla nga wuti fof kay ci alquran aru ngay wuti fof kay ci alquran faju ngay wuti ci njabarkat yi kaay ci alquran mo tax yonente dama la bo demé ci ñom rek weddi nga alquran moy li wax ci alquran gëmoko weddi nga kon atte njabar ci l'islam ak dem ci mom dem ci ñom yépp andul ak nit ki di gëm yalla té ñun fi sénégal dañoo japp né njabar man ta ñak ci comme ndox ak lekk comme ndox ak naan comme ndox ak euh, lekk comme lekk ak naan benn xale bu jege mas na maa dama oustaz man daal damay wujje damaa bëgg nga defal ma loo xam ne sama jëkkër daf may gën a jox bopp daf may gën a bëgg <laughs> ma ne ko da ngay baax sa diggante ak moom da ngay yéwén da mokk pooj nangul ko nekk ci yim bëgg bàyyi yim tere boo amee lu baax defal ko loo am bokkook ak moom te bu bëri di ko laaj te boo jullee ñaar rekk ñaanal yàlla mu dugal la ci xolu sa jëkkër ñaan ko yàlla mu ne ma aw ma lu ma war a mën a sangoo wala lu ma a <laughs> jëfandikoo wala lu ma koy jox la wala nangam ma ne ko déedéet loolu de dëgg yàlla man ko mu ne ah oustaz man de dama laa déglu nga ne kenn du dem si njabarkat yi kenn du dem ci sëriñ yi waaye oustaz man sama sëy bi wóolu ma ko bàyyi noonu de nga nga jox ko dara <laughs> gis nga moom demul ngir yàqal kenn mais jàpp na ne war naa mën a dem pour lu koy jëliñ mu ne ma waa oustaz lu may jëriñ lu lu gën a defar sama diggante ak sama jëkkër mu gën a neex loolu mënu ma koo jëlee si mënu ma mu a loolu dafa araam mu ne ko dem gi nga fay dem moo xaraam dem nga la la yàlla tere bul dem bàyyil mbiri dox naturellement rek <laughs> waaw yu bari yu bel nii dafa bari kon mbokk ñu nit ñi ci tënk daal lii lañ bëggoon nit ñi comprendre ko mooy que dañu xam ne àdduna bi fii la toll te lii yëpp nag dafay tënku ci manqué pas-pas ñàkk pas-pas bi nekk ci doomi aadama yi ñàkk tawxiid bu nekk ci nit ñi moo indi problème yëpp yàlla xam na ne bu ñu nekkoon ci société bu am tawxiid ni mu war a demee laa wax kennal yàlla nangul yàlla wóolu yàlla bàyyeeg sa bopp yàlla dimbali ko yàlla sukkandiku ci yàlla gëm na lor ak njëriñ ci yàlla rekk lay bàyyi ko gëm na diggante asaman ak suuf si lu fay am te neexul yalla amut nga gëm lolu mu dëgg ci yow wallahi ñun ñi sa dañuy tëj suñu centre ruqiya kenn du ñëw ci ñun kenn du ñëw ci ñun parce que njabarkat yi duñu man ci yow dara jinne yi duñu man ci yow dara cat aussi tamit dañ ci mëna muccu parce que jébbal nga sa bop suñu borom tabaraka wa taala mais ñak mais manque tawhid bi tawhid disparaître ci société bi genn wàllu société bi bu ñu xamulee lan mooy tawxiid bi ragal duggee nit ñi ragal bi ñu bi mu duggee nit ñi bi doomu aadama bi demee ba jàpp ne pour moomam nekkul en sécurité le fekk que takkul dara nekkul en sécurité takkul dara ci otoom nga xam ne ñun dañoo dem ba gëm ne takk ay téere sax yamatul ci takk suñu ndigg waaye suñu oto yi suñ kër yi suñ bërëbu liggéeyukaay yi boo demee ci marché yi balaa nit di ubbi palaasam yor na benn butéel bu muy yëndal wis ko ci buntu place bi wis ci biir laal ci ay loxoom kee def noonu kee def noonu kee def noonu nga xam ne bataille mystique bi dafay am ci biir marché yi te nit ñi duñ duñ ko yëg ci biir kër yi fu ne bi loolu amee nag ci la jinne yi nag ne ah doomi adama yi kat fasaaduhum rahaqan rijaalu min al insi yaxuduuna bi rijaal min al jinn fasaaduhum rahaqan ci la jinne yi songu am koo xam ne moom daa gëm ne lii baaxal ay mbiram mu ci xamp maamam ya foo muy dem ci xamb yi di sëlmu ci ndox mi di laal ci ndox mi ñemoo am jabar te demoo ci xamb yi tàggoo ñemoo tukki te demoo ci xamb ya tàggoo bu bu ngente amee ci biir kër gi ñemoo rey ci xar mi te joxo dara xamb yi te li gën a mën a tardeel nit rab ci la bokk li gën a mën a tardeel nit ci wàllum adduna rab ci la bokk maanaam rab amul la benn njëriñ moo tax occasion yu mel nii dama ciy profité ne képp ku yor ay xamb su biir kër loolu gratuit dañ koy bindee doo fay dara gratuitement doo fay dara ñi nga xam ne ñoo moom affaire bi nañu waxtaan ba déggoo rek woo ma ma ñëw dindi ko déménager ko déplacer ko te incha allah du am benn risque ci kàttanu yàlla parce que day jël ay espace ci biir kër yi de day jël ay espace ci biir kër yi xam bi fi ñuy nekk ñaari néeg dafay mën a ne waaw te du def lu dul delloo ginnaaw biir kër gi delloo ginnaaw kër gi delloo ginnaaw waa kër gi dafa am benn jàngat boo xam dama koo def maa ngi jégalu de chaque instant fa laay jeexalee dugg ci beneen beneen ruq dafa am benn jàngat bu ma def ci li lay wax ne rab yi da delloo ginnaaw mais du la avancé loo. MMS Pro. xoolal fii ci Sénégal dëkk yi nga xamante ne ñoo gën a siiw ci wàllum rab mooy dëkk yi gën a ñàkk avancé. commencé ci tëngëj bii ñu ne xoolal tëngëj ni mu yàggee xoolal tëngëj ni mu yàggee laa wax dëkku cosaan la xoolal ni mel ay canal yu yeggut ay canal yu seen maire yi ay jàmbaar lañ de bu leen yaakaar ne ñoo liggéeyut maire ay jàmbaar lañ mais affaire yi téye dëkk bi du maire yi dañuy liggéey de producteurs yi am na nekk ay jàmbaar mais ay canal yeggut ay tali yu <laughs> xolal route national bi man ta jak avant payage bi ku doon te tëngëj ngay xalaat gars sirat lañ ko tudde won sirat <laughs> waaw même ñeuf état xoolal usine yi taxaw ci dëkk bi usine yi taxaw usine yi xam ne dematul ay usine yu taxaw waaw so jëlé fofu demal demal ak fan demal wakam xoolal wakam xolal yof quartier yoy am ay xam xoolal niñ mel ay quartier yu yàgg la ci ndakaaru waaye jam ñaare sax a ngi dem di leen fi bàyyi jam naa fi mu ne mu ngi dox di dem di leen fi bàyyi xoolal notable yi dëkk ci quartier yooyu ay notable ay politiciens yu mag ñooy dëkk ci quartier yooyu léegi-léegi fii même fii Tëngéej même boo demee ci kër yi am xàmb yi noonu la mel ay bâtiment yu xar ay ventilo yu doon doomam yàgg taxaw matériel boo dugal ci biir kër gi mu yàqu ak coowaloo ak ñàkk déggoo bi am ci biir kër gi même boo nekkee jeune ci biir kër googu dangay ngay génn di wuti Amérique France fu ne di nga fa dem boo moytu ni nga demee noonu ngay ñëwee wala nga def dix ans ci àll bi doo tabax baaxut day delloo di ginnaaw loolu moo tax képp koo xam ne am nga ko si biir kër ñun gratuit doo fay dara dañ koy dindee ci kàddu ñaar nettoyé ko ci kër gi ba mu set wicc yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla wéral ñu yal na yàlla aar ñu yal na yàlla may pas-pas bu leer ba nga xam ne duñ soxlaan jabarkat ci dara xarfa xuufa dara. buñ tak ay téré jabar kat dañ leen bay ak seen yef buñ bëggé nek ci jamm téré yi nañ ko tek sanni amul ndëriñ amul ndëriñ dinaay faral di joxe misal pour wax la né téré yi ngay tak ci auto bi ci biir kër gi ci sa ndigg yi ci place bi amul ndëriñ ila la tak téré bes bu feebaree bu démé hôpital ñu war ko opérer dañuy dag ay téeram tek né té ñu nga wara sa biir bi ñu ko wara xoti soxla nga ko la taxaw soxla nga lu la ar soxla nga lu la dimbali téere yi nga yaakaaroon tekki nañ ko dagg nañ ko tek ne ku la fay ar ku la fay taxaw ku la fay dimbali soxna si nga xamne ne day ëmb ñu takkal ko ay téere fi ci loxo yeeg ci ndigi leg yépp parce que da wonu lor pendant neuf mois mu takk téere yi ngir ñu ar ko ak ëmbam bes bu muy matu ji bes bu muy matu sa famille dañuy tek ay téereem tek ne te jour bobu moy jour bi gëna danger ta wax ci ci ëmb bi lu muy wax yàlla latif lay woo yàlla lay woo téere yi dañ na bu yàgg foofu ku la fa taxaw ku la fa dimbali ku la fa aar yàlla boo dem Makka aéroport dégg naa la ñuy tekkee bagage yi teg ko fa <laughs> du dugg màkka ñetti weer wala ñaari weer nga def ko Makka yoo xam ne teg ko ay téere ku la fa aar ku la fa taxaw ku la fa dimbali yàlla nañ ci yàlla musal kaso kaso bii boo ciy dugg rek gars yi duñ la bàyyi say ndombo ndombo yi dañ koy récupéré dugal ci mbuus takk jox la nga ne ci kaso bi tëdd sa peine ba mu jeex génnaat ñu wékkaat la ko nga wékkuwaat génn prison bi ay waa ji yal na yeex waaye boo génnee àdduna bàmmeel bi nga jëm benn pas-pas doo ko fa yóbbaale te boo ko fa yóbbaalee torox yonent bi alayhi salaatu salaam xooloon na benn waaye ne ko boo faatu woon takk-takk bi ànd ak yow doo texe mukk ci àdduna kon ban njëriñ la am gëm-gëm la nangu nañ ko nag nag ndax suñuy maam la fi nekkoon mais suñu imam xeyna deg deg biñu warona am ci walum diina amuñu ko won tay mbiri leer na waxkat yaa ngi wax ku bëgg xam di nga xam and ak li lepp nak da ngay leral ba pare nit tok fele naan ibadu la ya xey ci ñun liñ lay waxal sa ruñu bokku la waxu ñu la suñu waxi bop waxi yalla waxi yaronte bi lañ lay wax yalla yalla jubal yalla yalla defal jam, yalla yalla musal yalla ar wa akhu dawana alhamdulillah wa salaamu alaykum wa rahmatullah